TV mooy suñu télé. Eh, yéen yéen a ngi tasaare. internaute ba tey ñu ngi ak yéen fii ci concert Wally Ballago Seck euh, boo leen gisee ki ma taxawal mooy Saliou Khoulé euh, nekk ci Sen TV tey nag ma giseek moom fii euh, ci concert Wally Ballago Seck fas yéene koo tàllal sama micro Saliou nuyu naa la. mais eh, Toufa lay fay. mais tey lan mooy sa taxawaay ci concert bi. waaw. avant tout sax may nuyu waa Reubeuss TV ah muy site bi xew ci jamono nag yéen a mën ñëpp loolu moom man maa ko wax waaw bëgg rek bëgg rek comme ci musique laay yëngu képp ko am ndam rek daa mel ni maa am ndam Wally Seck mu def ndam la amatina ndam ñun ñëpp am nañ ndam ndax ci la ñuy yëngu waaw gaal gi boo ci nekkee bul ñaan mu kii. waaw d'accord mais tey lan nga ñuy wax ci fin d'année bi. Euh, ak lan ngay wax waa Sénégal ak Wally Seck waaw d'accord xanaa. ñu gëna a rek atum jàmm comme ni ma koy waxee rek nouvelle an nouvel esprit nouveau toi yàlla na doon atu xewal atum natangé yàlla na ñëpp yokku ba yëg ko atum jàmm rek 2020 mom yàlla na dàq 2019. mais la nga gisee Reubeuss TV mi la talal micro am tey. waaw mais yéen xew wax na ko légui fas bo gis nak site yi bari na moom site internet yi mom bari na fas boo gis fas a ko jur waye nak naru gor ci la fas yi mënantee. yéen a mën ñëpp maa ko wax. mais dama aussi ñi ànd ak yow yëpp nañu abonné aussi. mais dañuy abonné man maa njëkk a abonné sax ba noppi woo ñëpp waa Sen TV ak waa Zik FM ñu abonné non yéen a moom dëgg moom du neex waxuma ko pour leen neex mais yéen a wóor info yu wóor lépp fii lay xewee yéen ko yor. <laughs> ok merci Saliou am naa contentement bu baax ci tàllal la sama TV mooy suñu télé. Eh, yéen yéen a ngi tasaare